match bi kañ benn match mu tuuti yomb benn match mu tuuti yomb parce que boo xoolee fekk nit ki këram ak état terrain bi ak climat bi tàngoor bi ak poussière bi ñun xamoon nañ ni match bi du yomb nit ki même boo ko ëppee doole sax mais day fipp biir këram te loolu moo ñu arrivé fu mu ne nii match bi yombul woon dara dara dara waaw. alors euh, am temps de trois points trois points yi ki jege trop di ñëw terrain chaque jour entraînement di ko seetaan xamoon nañu trois trois points yi depuis entraînement ci biir semaine bi ba ñu perte contre Africa Promo ci laa commencé waa waxu trois points yi waxu trois points yi di ko dugal ci bopp xale yi di leen motiver di leen encourager di leen xamal ni fa ñuy noonu soxla wu fa dara dul ñetti points laa soxla damay reyante am 3 points c'est normal ñu ñu il réagir quoi parce que si defet leen jógee en plus euh, voyage bi na trop trop mais alhamdulilah quoi géré nañ ko am nañ ñu ngi remercier gars yi ñëpp gars si jàpp quoi gars tey mu ñëpp joué franchement gars yi joué nañ. joxoon nañ ko mais dañuy dañuy yokk liggéey bi encore non dañ koy déjee waa waa Mbacké ñëpp surtout président bi ñëpp waaw waaw suñu mbokk yi waa Mbacké ñëpp ñëpp ñëpp victoire bi ñu ñenee ko moom